Juan Branco ah 94 Walf Sénégal di si di leen char di char mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal Juan Branco ndax day ñëw Sénégal wala en tout cas daal xam naa lu ci mën a am mooy moom chaque jour saa su nekk rek mu ngi défendre clientam bii nga xam ne ni moo di Ousmane Sonko moom saa su nekk mi ngi ci xeex bi ndax yaakaar naa dañ ko cee dugal ndax dañ ko cee boole ndax tubaab nag am na ci tubaab yoo xam ne ni surtout nak ñi nga xam ni dañoo xam wàllu yoon dañuy layal ay nit ñoo xam ne nii buñ leen bëggee jaay doole ga ci aju ñoom faaw rek dañ ciy dugg buñ leen euh, jëlee dañuy xam kon euh, yoon bi nga xam ne nii foofu la ñuy jaar di ko tracé boo ko defee ñoom dañuy jàppale seen client pour mu mën a génn ci li nga xam ne nii moom lañ ko euh, tekkan Juan Branco daal ngi noonu ndax day ñëw Sénégal wala day resté foofu ci France di continuer xeexam di jàppale yi nga xam moo di leaderam di Ousmane Sonko waaye en tout cas daal Euh, fi mu toll ni moom mi ngi commencé waat di génn di def ay révélation yooyu noonu te gars yi moom chaque jour saa su nekk rek bu génnee wax dañuy posté ay boo xam ci euh, internet bu dul dara sax moom dafa yor ay réseau mag yëppam ndax gars yi sax dañuy wax ne avocat bi nga xam ne nii moo ëpp lu muy feeñ ci réseaux sociaux yi ndax yor na ay compte am ak yëpp te buy def ay live am da koy def ci compte TikTok am wala ci compte Instagram am wala ci conte Facebook am nga xam ne moom daanaka mën naa ne suy def live ñëpp dañ koy topp di ko déglu kan daal nekk na avocat boo xam ne du bàyyi benn yoon avocat bu pànk la nag waaw ku pànk tubaab bu ponk pank pànk laa ko tuddee man tubaab bu pànk pànk waaw xëy na nag maanaam jafe-jafe yi nga xam ne ci la clientam nekk mooy défendre euh, clientam ndax moom moo ko jël pour mu défendre ko kan nag am na droit moom it ci liggéeyam la nekk bu ko defee muy défendre client am voilà moom Juan Branco waaye en tout cas daal sunu réew mi daal la ngi nii fi mu toll nii moom yaakaar naa ne tant mille egguñu 2024 réew mi moom jàpp na leen yaakaar naa ne moom coow li dina bari trop trop trop mais bu nu weesoo 2024 rek yaakaar naa ni coow li dina wàññeeku xëy na Sénégal yi nar a defarul rek man da loolu laa ci gis moom laa ci yëgit ndax Sénégal ñëpp dañoo taxaw sojjat bëgg réew mi defaru parce que daanaka mën naa ne ay cent ans ñu lay dig ci ay nax maanaam di la teg ci ay nax di la nax guddi ak bëccëg di la nax di la nax boo demee ba ximmili ko ci nax yooyu na pour ñu nax la